indi ci tànki sëñ Abdou Khadir maa ngi jokkoog léegi Massar Niang suñu papa Massar Niang mi ñu di ko yàlla baaxal di ko yàgg ak coon woon nañu ci bëccëg nee na ma peex coon dafa sama oto dafa takk batterie bi yeex kii rek mu ànd ak man jënd ay batterie ki lamp yëpp def ci ñu ko Massar ni ma bëgg sama bakkan bi laa la bëggee Massar buy wax yow day jooy mhm. Massar moomu la ko waxoon ni ko ak as mbeng sama soxna ni leen na wax mbay peex dama ko bëgg a gis ànd ak moom toog ak sëriñ Cheikh mu Cheikh Abdou moo tax nag dimanche it ma takku ndax alima man sëñ Abdou Khadir rek la am. dëgg la. moo tax it tey ma ñëw ci plateau bi pour seeree diggante sëñ Abdou Khadir ak taalibe bi. régie bu élément bi yembee rek. mën nañ ko jël soxna Momi Bousso. waaw ah, Momi Abbas. waaye di di la wax ni. Mm-hmm. kenn nekkul bugaana ñàkk. wallaay dëgg la waaye bugaana matub taaw. dëgg la. ku xool ni mu téye coon waaye nag ki ni coon jox dafa tasul suñu kër muy moom i natu. Mm-hmm. non personnel bi yëpp a ngi nii kuy liggéeyee bugaan ku nekk moom i na la. wallaay te sa morom yëgu. wallaay ndeysaan. nu ñaanal nag waa ji Ablaye naa dañu doon mbëri jàngil bëri nee na ko tax mu ni def na ko ñam. wallaay dëgg la papa Régis ñu ngi may wax nii ku dégg li mbay li euh, kii borom fasinaaru góor yi mbay jën mbay. mbay jën mbay. nee na ma lu ma téye woon coon fukk dinaa ko téye. wala junni. wallaay dëgg la. waaw léegi loo wax ci riche. nañu nañu xool euh, élément soxna Momi Bousso Momi Abbas mi nga xam ni moom la fayee Momi sekk ñu xool euh, lu sang bi wax ci Thione Ballago sekk digganteeg Thione Seck de mun naa ne mbirum yàlla la ndax yàlla dafa dogal euh, bi may ñëw dakaar gi nekk xale bu tuuti am ay 17 ans fi ma dëkkoon dafa am ay employé ji Njuga Kebe yu fa dëkkoon ci ginnaaw. yoo xam ne ay musiciens lañu ku ñuy wax mbay Fall ak sa Diop mii nga xam mii nii ñu ngi fi moom ba léegi su déggee li may wax dina ko xam ak mbay Fall ak ñeneen daal ak Omar Pen mii booba lay soog a tàmbali bu ñëwee nag xam nga jamono jooju lu bokk ci sëñ Touba lu nekk dakaar bariwul suñ jógee boobu maa ngi dëkkoon jëppal suñ jógee ñëw di ma siyaare si dama dégg nañ ne dereti sañ Tuubaa fi ne di ma ñaanloo ba benn bis euh, coon ñëw fa ànd ak ku ñuy wax marsek Seck sax man gisatuma ko mais moom it da daan woy ñu ñëw ne ma dañ may siyaare si ñu nuyoo siyaarente dem ba mu yàgg nag euh, Alaaji Mor Jor Seck mi nga xam ne xaritu Alaaji ji la woon xam naa coon waxtaan ceeg moom mu ànd faak moom nag ne ma ginnaaw yaa fi nekk te coon day door a tàmbali way ku ma bokkal ndey ak bàyyi lañ ko tudde muy coon sekk dama bëgg ngeen jàppante nga koy ñaanal ci gàttal daal foofu la suñu diggante tàmbalee muy ñëw sama kër euh, di ma seet si ba yàlla dogal am luñ ko defoon booba jamono ji ñoom xale yooyu dooru tàmbali woy ñoo am luñ ko defoon daal lu mel ni ab liggéey mu am ca jaaxle lool ñëw diis ma ci ndimbal dama man daal damaa ñëw sama néeg fekk fa lii fekk fa laa ëmb ko def ko ci mbuus ñëw wan ma ko ma ne ko man dey du ma takk téere du ma sangoo saafara lii da ngay dem sànni ko boo ko sànnee nga raxasu ba set nga ñëw ma wax la ni ngay def bi mu demee sànni ko raxasu ba set ñëw ma ne ko gis nga kii su la mënaloon dara lii boppam la koy defal mu jariñ ko ñëwee ñu dem ma yóbbu la ca kama jébbalu man muy sëriñ Abdou Khadr nga diis ko li nga bëgg moom sax xam nga moom coon moom nitu dëgg la lépp wax way na ko bi ñu demee ci sëñ Abdou Khadr soxna Bali mii mu tudd ci way bi muy doomu soxna may caatu sëriñ Touba booba fa laa dalal coon sëriñ bi ma ñëw ñu ne ma dafa nekk bustaan ñu fekk ko bustaan bi ñu egsee ma nettali ko xibaar bi mu ne ma yow de fii sa kër bàyyi loo fi bëgg loo fi lu fi amut rek danga ko lu fi loo fi amut rek dafay nekkut te lépp a fi ne ginnaaw nag kiis ak nit la te nee nga lii nga bëgg ci moom dinaa ko def ci moom bañ fay dem sax coon waxutoon waxi jébbalu waxi ñaan lu la doon wax waane biñ ne jàkk sëriñ Abdou Khadir moom nga xam ne soo amut ndimbal rek doo jàkkaarlook moom biñ ko ne jàkk rek mu geesu ma ne ma damaa bëgg a jébbulu ma ne ko ah loolu de ci dàqati ma wax ko sëñ bi sëñ bi nangul ko ko mu jébbulu bi mu jébbuloo sëriñ bi laaj benn carnet ñu indil ko ko mu jël xalima ak boppam bind ci turu coon seek ca téere ba daal di koy tëjaat dugg ci jàkkaam jooju nga xam ne yonent bi feeñu na ko fa ñaan génn ne ko tàllalal say loxo mu tàllal muy ñaan di ñaan di ñaan coon di jooy ba loxo yi fees ñu daal di ànd ñibbisi foofu daal ci tàmb suñu tàmbali xaritoo moom foofu la commencé bi muy bëgganteeg jaaga mi booba jaaga xam naa su amee fukki at ak juróom-ñaar xam naa ci lay yem man ma toll ci ay vingt 25 ans yooyu mu ne ma dafa am ku may bëgg te xam nga ñoom musiciens yi ñooy xam jigéen ñi ñi ma gis ñépp daal moo ma ca doy ma bëggoon ñu ànd fa nga xoolal ma ko soo nee doy na la rek man ma door a dugg keroog ñi ngi fekk euh, jaaga fii ci rue defe naa bu ma juumut mu génneel ñu ay sees tegal na noonu ci bitti jëndal ñu dibi ñu toog foofu reer naan naan boisson léegi ñu génn ma ne ah kii de man xaw ma bëgg nga am de doone man bëgg naa ba yàlla dogal seen diggante soxna moomi mii juddu mu daal di ma koy tuddee muy moomi bu sa sekk mi mu tudde ma ko boole ceeg nag euh, di nit koo xam ne daal fi ma teg Thione sekk fim ma teg dafa kawe njort ndax defe naa lim ma way ëpp na mil way dëgg googu ñu wax ci moom de luñ ci wax rek am na luñ ci bàyyi euh, am na ko ma ci laaj démb rekk ma ne ko li gën a am solo mooy Thione Seck jébbalu woon na ci kan la jébbalu woon ci sëriñ Abdou Khader te sëriñ Abdou Khadir ku yàlla dogal nga tàllal say loxo jébb lu ci moom mu nangul la ko ñaanal la ba nga jooy kooku yàlla taas ñu ci sa barke rek la ñuy ñaan njabootam gi nag li ciy dal sama xel mooy da leen a yar yar na leen ci diine islaam jàngal na leen alquran jàngal na leen nasaraan kii nga xam ne nag mooy soxna Momy sekk di sama turandoo moom dama ko ciy beral ngërëm ndaxte fa tabaarakallah macha allah baayam gàcce ngaa ma ndax moom doomi milliardaire yi la ko booleeloon classe mook sama doom ju ma jur ma nag àllaa ji njugo ñoo bokkoon école kon xam nga kooku baayam taxawu na ko ba mu am fa baccalauréat ba am licence ba dem France ba am li muy am lépp macha allah am yar am teggiin am sutura jëkk a jóg ci kër coon kon nag moom dama koy beral ngërëm di ko beral cant te di ko dollee dénk njaboot gi parce que fa tabaarakàllaa macha allah am na am na fulla ji am na fayda ji te am na mat gi kenn du ko dégg ci dara baayam daf ma ne man de moomi jaaxal na ma dama ko naan sa bàjjan nga nuru parce que moom daal beneen affaire la kon nag noonu man dal na sama xel te seen yaay it kenn déggoo ci dara fi mu ne nii démb ci dëj bi bi sama doom ñëwee dane moomi ko ne sama wet lu ñu ma jox nga nangu ndax yaayu sama jaam jiitaluñ kenn kenn kenn teg ma ci kuy sëyi seen kër ba ci ñoom faat bintu mii nga xam ne tuddewuñ ma ko sama doom la la la jaaga di jox njaam ga cër bépp bépp bépp mu jox ma ko cër bi ma am ci coon sekk bépp mu jox ma ko fonkeel gi ma am ci moom yépp coon am ci man yépp mu jox ma ko kon nag naa ci lool coon sori na ci man sunu sëriñ bi nu bokkoon it sori na jaman man. sant bu baax alhamdulilah rabbil alamin jërëjëf euh, Mouhamed Diop moo ñu jëlali woon élément bi soxla moom yi Bousso kii la Papa Thione wooyoon doo fekkee fu ñu may néewale lu ma xew la yaa cee jiitu Papa Thione bi nga xam ne moom la Sénégal yëpp doon gis mu di ki doon mu di mu di waykat bi papa loo gisee Papa Thione bu am taalibe wala maa ñëw ci Papa Ablaye Mbaye ci digganteem ak Sëñ Abdou Khadir bu am euh, nit ku am taalibe ki xam nga Adja Alima mhm. nit bala nga koo xam mu génn àddina wallaahi c'est dommage Sénégal barki démb bi nu koy denc. Mhm. ci yoof àdduna fa daje. du mhm. su wax na ko léegi. Mhm. waaye damay def foofu benn parenthèse bu ndaw rek. man ak yéen ñi may seetaan Sénégal dëkku diine la. dëkku taalibe la. dëkku yar la dëkku teggin la. waaye li ma gis ci armeel yi léegi day rafetul dama gis ci armeel yi rafetul de te nag yàlla du moroom yàlla kenn du ko fontoo te dafa am benn seetlu bu ma lu bër ci dëmb bi ñuy denc coon sekk xam nga photographe bu njëkk boo nee leen kaay lu photo dafa fekk nga bëgg ko mhm. muy sa xarit wala nga bëgg sa muy sa soppe mm-hmm. waaye di photo booy photo néew di photo booy photo ay armeel loolu moo tax déegi bari yàlla boo ko woo la fa soo gisee déegi bari du dara lu dul nit ñi ñoo woo dee te nag dee boo ko wooyee mu la te nag xaabaabal na ba dëgmal nu ba neexutu la téye boo seetloo at mii nu génn ak ñii dugg dafa daanu ci ay kilifa kenn xamul nu mu dara warulu ko lu dul nit ñi ñoo dema dem ba nga xam ni dañoo wëlbatiku jël nag yàlla di ko bëgg a def morom te yàlla du morom te coon ku wegoon sunu borom la ku wegoon yàlla la xam tax mu weg yàlla coon dëgg naa benn témoignage am ci jàkka yooyu nekk ci wetu këram. Mhm. ci ilimaan ya fa nekk ak ña fa nekk ak naayib ya ak ña nga xam ne ñooy bilaal ya ci taxawaayam ci jàkka ji. coon ku bëgg julli la. Mhm. njabootam yëpp da leen yar ci julli. Mhm. yuusu mi xam na li may wax. dëgg la coon boo dul julli sax bëggu la soppu la. coon ku bëgg dimbalee la te yàlla tax. loolu doomam jël na ko ci muy waali. dëgg naa moo doon xaritu taalibe yi. ndax. koo xam ni boo xëyee sa buntu kër dangay ngay fekk ñu jonkono ko di la xaar nga génn la nga yoroon nga tasaare ko jox ko julli di te yàlla rek tax kooku yaakaar naa ne buñ dee wax ak ragal yàlla mi ngi ci moom mool ba dugg nag jël sëriñ Abdou Khadir Mbacke radiyallahu taala anhu sëriñ Ablaye Mbaye Peex mm-hmm. di sunu maam du tedd jooju Cheikh Ahmadou Bamba jur ko mm-hmm. radiyallahu nga xam ne keroog bu ko Alhaji Abdoul Aziz Dabakh fekkee Tuubaa da koo liqaamal ni ko doxal nga julli doxal nga jiite man lëkkaamal la nu bokku jur yi nga xam ni kooku ku ko xam-xam ni du waxantu kooku ku mu ñaanal ñaan googu sëriñ Abdou Khadir nga am ci moom benn réflexion bu ndaw rek mm. bu taxawee ci min baara bi noonu muy tourné noonu mm. nga xam ni kii mm. tourné wul tourné nen ilimaani tey am na mu yëg am na lu mu sentir mm-hmm. Mm-hmm. pour ma wax rek ni ñooñu ñoo xam yàlla yàlla kenn du ko fontoo ko ko xaasal ko ko coon kooku nag moo ko ñaanal yàlla mm-hmm. may profité ci occasion bi di gërëm Bougane Gueye Dany ca armée li laa ko gis wallaay lu ko waroon ci coon rek def na ko bëggul dara fi mu ne lu ko waroon ci bokk yi def na ko jël engagement nag taxaw te loolu yombul ta ñun nag danoo yaroo ci ay loxo te ku yaroo ci loxo nun la téye nga xam ko mhm. Bougane dafa jël moomi muy soxnaam mhm. waaye nag jël ko muy rakkam mhm. ndax coon baayam la dëgg la jël leen teg leen ca kaw barki démb fii la waali ñëw wala moo dem Gambie. Youssou mii moo demoon Gambie. mu taral ko fii yaatal ko fi fi la ubbee yoon wi doo ba jëm Gambie. dëgg la teraanga bu nekk mu jëmale ko ci waa kër Thione Seck. wallaay dëgg la kon. bàyyi la ma lay wax mooy ala anima. Sénégal gii ñu nekk ñun day war nañoo seetaat suñu bopp. dëgg gën a yéeme nag. mooy ko amoon portable bu baax ci biir armée rek sàcc nañ ko ko amoon portable bu baax rek sàcc nañ ko ma wax la nag ni la. Mhm. nan delloo si xel yi. Mhm. te xam ni dee du jaas. day ñëw te keroog ni réew mi bari coow li kër kër kër di këpp. Mhm. kenn du ni dugal naa ànd ak coow dugg ci pax mi doo ko dégg mukk. dëgg la ba coow li bari. ba nu ko dencee. ñëpp daal di wax waaxu. Mhm. gën a armel. wallaay dëgg la ko wallaay dëgg la ndax nan dellu dellu soit ci yàlla. wallaay dëgg bu ñu bu ñu bu ñu xamoon euh, dëgg-dëgg waa jooju nga xam ne moom lañ doon gunge defe naa ñi doon sàcc téléphone duñu sàcc ba bu ñu déglu woon li waa wax yëpp. Mhm. Euh, ba dégg ko. duñu mhm. sàcc yi ñu doon sàcc camas euh, tey façon Thione Seck bi ma bëgg wane ay facette tam mooy Thione Seck bi nga xam ne pas waykat bi bi am taalibe Thione Seck bi bi fonk njaboot Thione Seck bi bëgg nit Thione doomu aadama maa ngi miir parce que bu ñu génnee sëñ Abdou Khadir rek. Mhm. génne moom i natu. mënatuma taxaw. walaay dëgg la mbir da nga ko teg ci <laughs> kii génn. damaa bëggoon ñëw ci yow. yaatal foofu. ya maa ko dul muñ. ñëwal. kii génn. Mhm. photo bii moom i busa dend la. Mhm. benn photo rek la. kii moo yilimaay teg boo liggéey. dëgg la. doy na rek kër bi ganee jamono. sëriñ ba ko ba ko sëriñ Tuuba ba ko maam Cerno Birahim di tuddi mhm. sëriñ Tuuba da ko di Cerno mënu ko Mbàkke mënu ko na nga yéexal say jéego ba ngay dem ba ba ngay ñëw koo dajal du dem safara ah ba ko maam Cerno tuddee ba noppi day taxu ci pénc ak Kajoor ak Bawol ni ku nit jullit kaay gis ma jël naa mu xool mu téye coon ñaanal ko mhm. waaye bëtam bu tegoo ci coon coon mucc dëgg la de. te nag Mominatou mii ŋàbb micro bi. Cheikhou mhm. jur ko Abbas jur ko Serigne Bousso ba jur ko Aminata Kane ak Massamba Kane ak Mbacke Kane bokk ndey ak baay soxna Aminata Kane Bousso jur Cheikh Abdou Khadir soxna wa Bousso jur Sëñ Fallu 45 Sëñ Fallu toog ci xalifa gi ni kur bëndëg. raf la mel ni jiba muut sas ba juróomi sooroor fan. fa mu di lu teeb di mooy Sénégal. dëgg la walaay dëgg kon bu coon jibbuloo. Mm-hmm. ba jibbu doogu. te sëñ Abdou Khadir joti na yoof ñëw na yoof dimaas indi alxuraan ma waat. keroog ba ñu jëlee Habib Faye damaa wax président de la république Macky Sall mi ngi may dégg ma ne gaa yi bu ci kenn soow bàyyi leen ñu suuli ko yoof sëñ Saliou joti na yoof nga ne keroog bi ñuy denc Papa Thion yoof sëriñ Abdou Khadir. ñëw na yoof dafa am ku ñuy wax. Ibou Ndaw duwaan la dafa faatu sëñ Modou Abdou Khadre ni ma demal jëli ko ñu indil ma ko ma ñëw mu wax sëñ Fallou Fall doomu sëñ Modou Moustapha Fall ni ko damaa bëgg bu ma nelewee ñu suul ma yoof sama wetu ma sëñ Abdou Khadre yi jël boole ma baay Seydi Aboubacar bu ma sëñ Abdou Khadre yi jël na ma boole baay waaye sëñ bi dem na yoof dëgg la dem bay barke borom Touba boo indi alxuraan ma wat rawal kii kenn du ko yaakaar di dem safara mooy yili maa ngi teg bu ëllëgee jiite na ñëpp kenn gàggantiw ko l'islam jëmul sëriñ Abdou Khadir mhm. Sénégal yëgu ko ku jur yar na la foofu rek laa mënu woon téye sans wallaay dëgg la mbay wallaay dëgg la mbay <laughs> papa papa euh, mi nga xam ni fekkee nga euh, tàmbali euh, papa Thione ci tout tànk suñuy nopp ba léegi Euh, boo gisee seede yi nga xam ne moom la soxna moom yi wax euh, ci moom. xam nga allah jablaay dafa daanu. wallaay daanuwaale ñu. dañoo daanuwaale ñun ñëpp. dëgg la. li tax mooy coon. Mm. bàyyi ma ko jëkk bëgg Serigne Touba bàyyi ma ko jëkk a tagg Serigne moom Baye Cheikh. dama ne la El Hadj mm-hmm. agent de police la woon. moo daan garde Kéba Mbaye le premier président de la cour suprême. juge Kéba Mbaye. moom la tudde Kéba Seck mii. Kéba.